Euh, je pense que remarque bi ñëpp def nañ ko que xëy nañ suba rek euh, affaire bi flambé te amul benn assiette de calcul bu favorable boo xam mën nañ ko si tënk pour dire que lii moo tax mu yokk xam nga ci économie bu ñuy wax yokkute dafa am lu koy waral parfois marché bi mën na ko indi mais parfois aussi déséquilibre bi am entre demande bi ak offre bi loolu da koy faral di indi aussi aussi les facteurs de production bu ñu yokkoo de l'autre côté dañuy infecter directement sur le prix par exemple ñun ñu somme une économie boo xam dañoo dañoo fragile tellement wala vulnérable tellement ba nga xamante ni les chocs externe bu ñëwee rek daf ñuy carrément nërmelu moo tax suñu économie amul benn ténacité amul benn résilience parce que amuñu ce qu'on appelle une souveraineté et je pense que question bi yëpp man dafa leen moom ci xaw a jaaxal mooy euh, waru woon am en fait pour dire vrai sur le plan économique euh, inflation bi ñuy wax ci oignon bi war woon am. Mm. parce que sànq ba may ñëw ci oto bi maa ngi koy suivre euh, muy expliquer li nga xamante ni moo war a situation bi am. parce que dañoo toll ci fin de commercialisation oignon local bi. Mm-hmm. wala dugg ci phase euh, d'importation oignon bi nga xam moo war a jóge Maroc ak fi nga xamante ni mooy Hollande mais ci diggante boobu da ngay gis ni Maroc ñoo am na benn restriction bu ñu teg. on n'a pas encore levé ces restitutions bien vrai que ñu ngi ciy waxtaan sur le plan diplomatique mais Hollande ñoom aussi tollaguñu ci phase de commercialisation parce que vers euh, bientôt septembre août euh, yooyu fin doute septembre la ñu war a dugg ci phase boo xamante la ñu mën a génne oignon boobu ñoom pour mu mën a ñëw Sénégal mmh. léegi nag li fi nekk nii mooy li nga xamante mooy suñu oignon bu ñu toogee ci les données yi nga xamante moom la ñu jot Sénégal waru am problème bi parce que ñoom dañoo tablé sur dix mois yoo xamante ni oignon local war na mën a couvrir le marché local. Mhm. loolu la ñuy wax si wàllu production bi xam am na mais lan moo tax problème bi am. ñenn ñi nee nañu oignon bi dafa dem ba si wàllu conservation mënatu la nekk mooy li mu doon soulever sànq si wàllu euh, entrepôt yi nga xamante ni standardisé nañ ko wala entrepôt dernière génération yoo xam ñoo war a mën a stocké oignon bi. Mhm. mais le problème est beaucoup plus profond loo xamante ni man producteurs yi laa koy wax. Mhm. mooy cest oignon bi bàyyiwuñ ko ba ndox mi jeex donc parce que il joue un peu sur l'aspect poids parce que boo waree am oignon boo xamante ne boo tegee trois à 4 soble am 1 kilo ou bien am deux kilos parce que poids ndox bi mooy tax su boobaa si ngay gën a mën a jaay que boo ko bàyyee ba mu wow et là day jouer sur le plan de la conservation beneen bi mooy manque de sérieux bi bien vrai que il l'a réfuté mais man dama jàpp ni manque de sérieux dafa am au niveau des commerçants rétention boobu muy wax c'est-à-dire que rétention boobu muy bañ mhm. dafa exister réellement Okay. parce que ils savent nettement que ni oignon bee mënut a ñëw en terme d' importation li fi nekk mu as néew nañ ko téye et la spéculation lay jur. Mhm. mooy si la demande et beaucoup plus forte ko l' offre day agir directement au niveau des prix. et su boobaa nag c'est le consommateur qui est un peu impacté. mooy le pouvoir d'achat du consommateur day wàññeeku carrément. xam nga bu ñu wax inflation te définition dañ naan au des mais une définition correcte de l'inflation mooy. Euh, une détérioration du pouvoir d'achat des ménages mooy li nga mënoon ci 1000 francs mënatoo ko ak 1000 francs mhm. mooy dem na ba nga xamante ni li nga mënoon jënd ak 500 euh, francs foog nga teg ci lu ëpp 500 francs pour mën kaa am ci même montant bi ak ci même quantité bi su boobaa nag li ko indi mooy état dafa war a jël ay mesures am par rapport à cette question Sénégal dafa am loo xamante ne war nañ ko mën a doxal mooy li nga xamante ni mooy lii boutiques yi def rétention yi ñu xam yan daan lañ leen mën a teg beneen bi aussi le marché d'intérêt général lu tax président de la république investir si à hauteur de cinquante et un milliards pour ñu éviter ce genre de situation moo ko gën a waral. Mhm. beneen mooy à bord ñu fay jëndee tey ji gis nañ situation bi nga xamante ne existé na aussi. je pense que war nañu mën a gën a assainir ce milieu ba nga xamante ni augmentation de ces la là fu moo doon jeex carrément au Sénégal parce que bien vrai nag war nañu mën a agir sur ce qu'on appelle la souveraineté monétaire. la souveraineté autant pour moi alimentaire. alimentaire et je pense que ça toujours été un débat crucial au Sénégal et dañuy sentir ne à chaque fois rek ça reste ça laisse à désirer beneen mooy le secteur privé national euh, xam nga dëkk secteur privé national moo koy doxal quand je parle de secteur privé national je parle de d'injection ou bien je parle de financement dans l'agriculture war nañu mën a gën a doole ñi nga xamante ñooy def la production au niveau de l'oignon parce ni peut-être les chiffres ne sont pas trop avérés mais 45 pour cent des gens n'ont pas produit parce que amuñu moyens yu ñu et lu ko waral mooy le secteur privé national duggulu ci loxoom même au niveau des entrepôts le secteur privé national war na mën a en collaboration avec des banques créer des entrepôts yoo xamante ne stockage war na mën a nekk man je pense que foofu la ñu fayiree. mu mhm. indi situation bi nga xamante ñu ngi koy dund actuellement pour le pour la filière.